Amadou Balde laa tudd. fii ñu fii ñu ngi som waaw côté Bédé Yacine. waaw. damay dawal Jakarta. waaw. waaw dañ ma agressé jour vendredi bi guddi. Euh, lañ ma agressé mais depuis timis maa ngi kër ga fii di tëdd. Hmm. waa ay 22 heures. taal moto bi dem jënd reer yóbbaale benn natt laa yoroon après ci laa dem ma jënd benn kaas café ci benn jaaykatu kafa euh, café bit fin noonu ci laa taxaw après benn booy ñëw booy bi mu naan ma sama zone bi dafa am problème yóbbu ma euh, yoonu nasru bi de retour nga may yóbbu aller retour ma waxaale ak moom après ci laa ko yóbbu ma yóbbu ko mu wàcc dem ci buntu kër jàmbur boobu mu taxaw ci buntu kër gi mel ni ku bëgg a bus euh, bouton sonori boobu bouton sonori kër gi après man ma koy xaar ndekete fi ma taxaw dafa am oto bu gaare foofu benn waa ji foofu la nekkoon mu yor jaas ñëw mu naan ma wàccal moto bi ci laa wàcc moto bi ma ne ko ni may wàccee nag ma ne ko loo wax mu jël jaas bi yëkkati ko pour mu dóor ma ci baat bi fii après ma jël sama gaucher bi kale ko ma dóor loxoom loxo bu mu yoree jaas bi après affaire bi glissé loolu moo tax affaire bi yeggsiwul carrément après man ma wàcc moto bi di arrière di daw quoi après mu bàyyi foofu moto bi di ma topp mu jël jaas bi mu bëgg ma dóor ci bopp bi ci laa jël sama loxo droitier bi ma kale ko après ci jaas bi la dal nag ma ne woy sama ndey ñi dëkk ci kër yi côté boobu ñu commencé génn ñoom ñu daw booy bi ma indi nag kooku mu ñëw bëgg a taal moto bi pour yóbbu moto bi man ma comme gis naa keneen ki yoroon jaas bi daw na ma ñëw rek door ko sama tànk bi mu daanu ak moto bi moto bi commando laa ko doon dawal ma fay ko après affaire bi nii la demee quoi. ñoom moto bi. bi ma taxawee foofu police ñoo ñëw ak sapeur pompier waaw ñu ne ma police ngent ñoo yóbbu moto bi après sapeur pompier ci lañ ma jël yóbbu ma euh, hôpital régional waaw. nag euh, soxla nga ci waaw waaw instant bi moom maa ngi nii toog. ndaxte yàlla xam na ni man sam dañ koo wax fu mu nekkoon yorul woon dara dafa tiit rek ñëw expliqué naa kii yëpp ki sama gayen la ñoo fi nekkoon instant bi moom yoruma dara moom yàlla xam na ko te aussi man li ma yoroon fii ci weccet mu ngi ni pot bàyyi ni ñoo ko dajji lu ñu fekk foofu bariwul man def naa ko lépp te aussi fi moom xam nga danga loo loo kiiwee rek danga koy fay waaw loolu moom nit ñi dama ko dama leen wax loolu quoi. waaw pour ñu jàppale ma ci loolu waaw. yow ban dëkk nga jógee nii. man Kolda laa dëkk Kolda waaw. heure non non fii sama rakk papa fii la nekkoon mais dafa gaañu jabaram moo fi nekk doomam moo toog ne waaw léegi moom tamit instant bi moo xam naa ne moom jigéen la ci kër amul ku koy jàppale moom xam nga loolu day metti moto jàmbur la moto bi waa ji moo ko jëndoon benn soldaar te daf ma joxoon moto bi ma koy versé mais versé naa ko moom six mois et quinze jours laa ko versé chaque jour deux mille francs laa ko doon versé yàlla xam na ni versement moom tardewul dafa nekk correct ba tey boo xoolee loolu dem na deux cent et quelques mille moom ci presque somme moto bi luñ ko jënd woon trois cent soixante-cinq mille lañ ko jënd woon après mu naan ñu gars yi ñu ne carte grise mu jox ma quarante cinq mille man waaw après man ma yokku ci xaalis huit mille cinq cent ñu defaat ko même batterie bi baaxul maa ko jënd defar xam nga moto bi instant bi mu ngi police ngent waaw parce que man bi may jógee sapeur pompier bi ñu ñëwee ñu naan ma moto bi yóbbu nañ ko police ngent waaw sapeur pompier yóbbu ma hôpital régional mm. carte grise bi ak duuti bi loolu comme que dema dama wàcce woon yóbbuma ko woon fen fii laa ko bàyyi woon waaw carte grise moto bi ak duuti bi fii la nekkoon waaw. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah euh, suñu mbokk internet yëpp euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, ñëwaat ak yéen ci xew-xew bii nga xam ne rek. Euh, yaakaar naa ne xew-xew bu doy waar la muy euh, suñu mbokk bi di Amadou Balde euh, nekk dawalkatu Jakarta nga xam ne moom dëkkul sax fii nga xam ne mooy diwaanu cees mi ngi dëkk ba ginnaaw Kolda yàlla def nag mu nekkoon fii ñu jël moto jox ko ko mu ciy liggéey ngir di ci daan dooleem yàlla def nag ab bis ci guddi lan ko la yeb benn client mu yóbbu ko ngent comme ni mu ko expliqué fële ca Nasru ci leen ko agressé dóor ko ay jaasi yàlla def na ne nag depuis boobu mu ngi woon hôpital loxoom jot nekkatul ginnaawam mujj gi hôpital dañ ko mujj génne fi mu nekk nii dellu siwaat na fi nga xam ne fi la nekk ci këram waaye tey euh, boo xoolee loxo yi bi ñu ko dóoree jaas yi sax euh, veine yi dañu daggoon ba opéré nañ ko ba opéré ba fi mu nekk nii euh, takkalewaat nañu veine yi waaye xam nga ne moom mii mu nekk fi mu nekk nii affaire yi doy na waar ci côté am doy na waar ci côté ba tax na ne daal ci loolu Thiès euh, solidarité toujours comme ni ñu koy defee en collaboration ak Thiès info toujours rek euh, indi xew-xew bu ni mel euh, ngir bu ko defee képp koo xam ne yaa ngi seetaan rek mu mën ko jàppale soutenir ko te yàlla tax ndaxte tey yaakaar naa ne waxuma la delluwaat ci liggéeyam waaye soxla na waat na assistance ak faju ba loxoom bi mën a mel nanga xam ne meloon na ko ci loolu it mu mën a continuer liggéey bi nga xam ne moom ci la nekkoon ci loolu aussi dama ciy profité occasion la di lancer appel rek képp koo xamante nii rek yaa ngi liggéey euh, yor moto wala nga xam loo mënti doon boo liggéeyee ba heure guddi jot lépp lum la jàppoon rek boo ko mënee bàyyi nga arrêté ba xëy nga continuer waat sa liggéey ndaxte insécurité moom yaakaar naa ne tey ji euh, dañ koy gis euh, ci dëkk bi des fois ci loolu aussi ñoo ngi ciy profité aussi di lancer appel di lancer appel ki nga xam ne mooy le préfet ak ki nga xam ne mooy le gouverneur di remercier aussi police ak ki nga xam ne mooy gendarmerie ak sapeur pompier di leen ne euh, gis nañ seen taxawaay ci dëkk bi gis nañ seen taxawaay ci wàllu liggéey bi nga xam ne am na ci sécurité waaye teewul ba léegi nag euh, suñu dëkk bi di Thiès euh, rawatina ci yenn gox-gox yi lëndëm yi ba léegi insécurité mi ngi fa maanaam ay nit ñoom ni dañuy agressé ak di def naka sudul noonu kon nag ci loolu wax dëgg yàlla Amadou Balde mi jëf ju mel nii lañ ko def ci loolu nag moo tax tey wax dëgg yàlla ñu doon sàkk képp koo xamante ni suñu mbokk internet yi gis nañu vidéo bi moom mii ñu mën ko taxawu jàppale ko ànd ak wéram waaye daal di mën a delluwaat nag ci li nga xam ne mooy euh, liggéeyam euh, ci loolu tamit euh, am na numéro téléphone am nga xam ne ñaari numéro la ñuy joxe rek képp koo xamante ni bëgg nga koo jàppale nga woote ci numéro boobu bu ko defee ñu jox ko Amadou sa numéro ñaata la. 78 479 97 22. 78 479 97 22. ñun numéro nag fondation bi nga xam ne mooy Thiès solidarité 77 la 562 98 92 77 562 98 92 kaddu gi mi ngi noonu wax dëgg yàlla képp koo xamante ni yaa ngi ñuy yaa ngi gis li nga xam ne moom mooy vidéo bi ñu ngi lay sàkku di la ñaan lépp lu ñu mën a jàppale suñu euh, frère bi nga xam ne dafa bàyyeekoo euh, dëkk bu sori ñëw fii liggéey si ndog-ndog bu métti bi dal ko fi muy agression ñu mën ko taxaw jàppale ko ba mu mën a euh, delluwaat ak sagoom waaye tamit bu mu mën a continuer liggéeyam nga xam ne fii la nekk ci diwaanu Thiès ñoo ngi leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah. bit fin noonu ci laa taxaw après benn booy ñëw booy bi mu naan ma sama zone bi dafa am problème yóbbu ma euh, yoonu nasru bi de deux voies retour nga may yóbbu aller retour ma waxaale moom après ci laa ko yóbbu ma yóbbu ko mu wàcc. dem ci buntu kër jaambur boobu mu taxaw ci buntu kër gi mel ni ku bëgg a bus euh, bouton sonori boobu bouton sonori kër gi après man ma koy xaar ndekete fi ma taxaw dafa am benn oto bu gaare foofu benn waa ji foofu la nekkoon mu yor jaas ñëw mu naan ma wàccal moto bi ci la wàcc moto bi ma ne ko ni may wàccee nag ma ne ko loo wax mu jël jaas bi yëkkati ko pour mu dóor ma ci baat bi fii après ma jël sama gaucher bi kale ko ma dóor loxoom loxo bu mu yoree jaas bi après affaire bi glissé loolu moo tax affaire bi yeggsiwul carrément après man ma wàcc moto bi di arrière di daw quoi après mu bàyyi foofu moto bi di ma topp mu jël jaas bi mu bëgg ma dóor ci bopp bi ci laa jël sama loxo droitier bi ma kale ko après ci jaas bi la dal nag ma ne woy sama ndey ñi dëkk ci kër yi côté boobu ñu commencé génn ñoom ñu daw booy bi ma indi nag kooku mu ñëw bëgg a taal moto bi pour yóbbu moto bi man ma comme gis naa keneen ki yoroon bi daw na ma ñëw rek door ko sama tànk bi mu daanu ak moto bi moto bi commando laa ko doon dawal ma fay ko. moto jàmbur la moto bi waa ji moo ko jëndoon benn soldaar te def ma joxoon moto bi ma koy versé mais versé naa ko moom 6 mois et quinze jours. laa ko versé chaque jour deux mille francs laa ko doon versé yàlla xam na ni versement moom tardewul dafa nekk correct ba tey boo xoolee loolu dem na deux cent et quelques mille moom ci presque som moto bi luñ ko jënd woon trois cent soixante cinq mille lañ ko jënd woon mo après mun naan ñu gars yi ñu ne carte grise mu jox ma quarante cinq mille man waaw après man ma yokku ci xaalis huit mille cinq cent ñun defaat ko même batterie bi baaxuloon maa jënd defar. xam nga moto bi instant bi mu ngi police ngent waaw parce que man bi may jógee sapeur pompier bi ñu ñëwee ñu naan ma moto bi yóbbu nañ ko police ngent waaw sapeur pompier yóbbu ma hôpital régional carte grise bi ak duuti bi loolu comme que dema dema wàcce woon yóbbu ma ko woon fen fii laa ko bàyyi woon waaw carte grise moto bi ak duuti bi fii la nekkoon waaw